musique bi dañ koy dund quoi ñun dafa di li nga xam ne suñu famille dafa bokk ci ñun dafa bokk ci ñun dañ koy dund noonu moom comme ni mu ko waxee bi ñee demee bi ñu demee ay euh, Europe genre yooyu noonu si la ma woowee ne ma mbokk pour ma adhéré moom ma d'accord tam mais bon il est temps quoi xam nga ma ñëw jàpp ci liggéey bi lépp ci yoonu yoon yoon wu rafet quoi positivement quoi xam nga di ñafe xam ni euh, tôt yàlla kay résultat yi moom résultat non dina baax sax ah, dina baax waaw ok kon léegi bu ko defee ñu dul si xam nga seen euh, fin d'émission bon Alzo ma bàyyi la nga tàggatoo téléspectateurs yi nga wax ak ñoom bu Sénégal TV bon ak loo di paral nga tàggatoo quoi bon maa ngi nuyu euh, euh, téléspectateurs Sénégal TV ok leen nuyuwaale di connect situ ramak santam okay pada umur kan bab ni di setan terdengar di mangle ni mangle ne apa itu bab mangle bibok mangle ne purna bay helsi mm-hmm. tota ni ni def ne support ke ñu to ta doon gëm di nga gis résultat ñu dañu gëm li def nekk ñu def ay affaire sabotage nag ñun def ay affaire caaxaan. dañu gëm li ñuy def. dañuy investir amul amul clashante amul saagante. clashante amul saagante. ñun ñu message rek li ñuy def. bu wee ñëwee pour message dañu joxe suñu message bu jeexee jeex na. Hmm. ñu saaga kenn du ñu kenn respect. tamit mun nga gëm rek saa nga def comme yow saa mu def comme yow mun na la constat mu def comme yow.

jàllale message Rastafari. ok mun a am kuy Rastafari. Rasta ay desilaasi. ok conquering la moom la Rastamani di jàllale en même temps. di waxaale si moom mu nit yi mun ko xam. parce que dañu ne ay desilaasi dictateur la woon. Hmm. bon ay desilaasi dafa neewoon. dafa neewoon. nit ki ki nga xam ne gis. de faire nous faire fait par exemple 200 000. Pour le content si faire 200 000 pour recevoir. De faire liguer pour amener 400 000 pour nous appeler nous avons nous amener amnu loho tank amnu bet. Nous nous liguer pour nous amener ni lek pour nous appeler nous. Mais comment est-ce que nous avons un éducateur? Non non non. Voilà. les exemples yaa ngi noonu. ok loolu moom jugo africain la waaw. ñu gisee bu ñu développé rek waaw mbirum africain ñu ne moom dictateur la xam nga. booy gëmee sa bopp gëm sa bopp di fighting ñu ne dictateur nga te or que c'est pas ça du foofu. waaw mais kon Joe Nico yow nu mu demee nooy tàggoo yow. xam nga naka kontaan kontaan di leen wax ni euh, pare leen bu baax ndax émission bi aar euh, reggae. dafay bomb du taxaw fenn moom te kenn du ko téye incha allah kay moom kontaan nañ trop ci émission bi ci euh, teewaay ji ñuy remercier tam ay télévision yi mel ni yéen LCS yi nga xam ne dañuy euh, déplacé wu mhm. ñëw ci artistes yi comme ni mu ni mu ko waxee woon euh, ci commencement bi maa ngi koy maa ngi koy daanelee nga il faut ñu mel ni yéen télévision yi mel ni yéen bëri fii ci réew mi parce que bëri bëri na ay nit yi nga xam ne ah, ay jeunes lañu nekkul sax sax sax sax ci musique bi mais dafa bëri ay yi nga xam ne bëgg nañ ko wax. il faut il faut ñun jeunes yi ñu xam ne il est temps. ñu jóg suñu suñu Afrique gii nii ñu defar ko. parce que boo doxee ci mbedd mi di xool nit ñi yàlla yàlla baal ni ñuy comporté wu xam nga. ni ñuy dundee ñuy tooñantee seen biir. dafa dafa dafa dafa dafa doy waar quoi. xam ñu dawalee xam nga. voilà actualité bi ñu toll nii jamono temps temps bi nu mu jaxasoo. nu mu jaxasoo lu am nu mu jaxasoo. te fekk am nañu suñuy rakk yi nga xam ne ils n'ont rien compris ñun bu ñu jógul

seen new émission Reggae Art King Molo ah, Sénégal ah. TV for life. yes sir ok blessing.